Serigne Mbuub mi ni mu def tey dafa rafet ndax moom ñoo moom ñoo nekk fii waaye ñun fii kenn daawul wàcc di ñun di wax ak ñun moom nag su ñëwee fii wàcc taxaw di wax ak ñun yëg nañ ko incha allah nee nañ ko jàppale nañ ko jàppale li ñu mën bu ko defee bu soobee yàlla moom xam na li ni ñu bëgg xam na ñun li ñuy daj moom commerçant la xam na ñun li ñuy daj te dina dimbale tablier yi dina dimbale ma ambulant yi ñoo ci ginnaaw fu mu bëgg ñu dem fa def moom wax dëgg yàlla ñun rafetlu nañ ko ndax lii moom maanaam maanaam lii mooy oyof ndax ni ñi boo wàccee ba tolloo niveau bi ñu toll da ngay mën a wax ak ñoom communiquer ak ñoom te ñun booy xool ñi fi jaar ñëpp boo gisee manaam bu ñuy ñëw maanaam ñoom fa ñu yóbbu seen bopp moo tax yow seen seen wax yow dañu ko war a déggee ko dégg noonu bu faloo mu bàyyi xel rek xam ni maanaam fi mu départ quoi xam nga ñoo xam dañuy falu ba pare te jii nii maanaam dootoo leen xàmmee wala boo leen wooyee leen jot yaa ngi dégg li ñu la wax ñoom après gëmuñu ko waaye moom li ma dégg mu wax ak yi mu wax fii nii xam naa ni moom ndongo daara la te li mu wax moom li suñu borom wax moom bu ko jëfandikoo gëm naa ni moom day ci génn quoi. sëriñ boobu moom danoo yàgg a teral ba ñuy defar immeuble bi ñun ci suuf lan doon teg di jaay ñu ne immeuble bi de bu paree da ngeen fiy jóge ñu pare benn bis rek benn camion daal di ñëw bu mu ñëwee daal di andi ay lii andi benn euh, camion ñu wàcce ay taabal mu ne yéen jigéen ñi yéen ñu doon jaay fii yëpp du ma tabax sama immeuble ba pare di leen fi jëlee ndax xam naa ne ba man ciment beeg yëpp ci seen kaw la doon tuuru. kon duma leen jële fii mukk yéen ñu ñu ñemee liggéey ngeen ñu ma naw neen ñu mën a daan doole ngeen daa ñuy andil ay kees ñu ñii ñëpp ak ay parasol ak yëpp ñuy toog di jaay kenn musu boo jaayee ba ngoon yor sa caay boo yoree jaayee ba ngoon nga jaay marché bi ñu mais ba léegi Serigne Boubou lu gën a neex la ñu defal amul benn koo da ngay toog di jaay ba ngoon jot da ngay dem ci jàkka ji raxasu sangu julli doo yóbbu benn waxtu boo xam ne bi moom ngay fàjju te ñun ay julli lanu te dañuy daan suñu dool loolu moo ci gën a neex ñun moom pare nañ pour sëriñ Diouf ci jumaam ji ci laay jullee fajar chaque jour waxtu wane ci laa ko julli loolu rek daa jar sax sénégalais yëpp xool ko sànnil ko bàyyi ko xel ndax kii du sàcc ko tu xaalis kii du koo xamante ne buñ ko joxee réew réew mi daanu ah kon ñun vraiment bu ñu sañoon nekkul ne li nekk murid mu nekk murid rek waaye ñëpp juli yëpp ko war a jàppale te yi dogga yi ñëpp ko war a jàppale fal ah man de wool naa maa ngi ñaan sama mbok mbokki seen yëpp ak sama rakk ak sama jarbaat sama jigéen yi nañ ko sànnil la 24. dañu xam leen ku yor ay lii war nañ ko mën a jàppale ndax doomu réew mi la si réew mi la dëkk fi la jàng fi la juddoo xam nañ ne kokki la jàng sëriñ boobu dañ koy ñaanal rek si bàkk yonent bi mu jël réew mi bis bu ko jëree ñun buur la ñuy doon parce que bu mu dara dañoo def buur kon su doonee dara ci réew mi macha allah buur la ñuy doon moo ko moom moom kenn moo koy moom ku dul ñu defar defar ay taabal lañ defar fii yu rafet macha allah yi jekk kon boobu moom bu amul dara defal ñu ay taabal kon su amee dara ñun buur la ñuy door.